voilà mi ngi noonu actualité yi si lañuy ñuy daal di euh, door nii ah, ak euh, lune beau lune la jantal lune l'intelligence surtout awa papu awa doomi awa mi ngi noonu léegi maintenant eh bon, boo est beau il est gentil et léegi il donne de l'argent je donne de l'argent du mouvement. <laughs> Ah. <laughs> mën na nekk l'argent rek na na mu jógee baax na. Ah, am benn problème. <laughs> Ah, ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan bilaay yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla suturaal. amiin eh yàlla dëgëral suñu cër musal ñu si seytaane. Mhm. et yàlla xëy ñu aussi ci yoon lislaam waaw ci jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke bam tabax jërëjëf waaw kan ay ca bokk xanaa yaay yaay yaay chef waaw ñu mhm. ñu ñu ñu wéyal mhm. Walf Quotidien la ñuy doon actualité comme d'habitude rek ah bu baax bi liquidation des adversaires mhm. le Sénégal vers une démocratie sans opposition un beau titre. <laughs> bah oui mais ils sont bons c'est pas parce qu'ils sont de chez nous. Mm. mais euh, évidemment donc ça voudrait dire tout simplement que y a un monsieur qui s'appelle euh, Macky Sall qui est en train de de de de de de réussir justement euh, euh, euh ou d'arriver à ses ambitions. Mm -hmm. parce que rappelez-vous il a eu à dire quand même euh, il y a quelque temps en arrière si je puis dire que ni dina dina dina dina mës a réduire cette opposition mmh. que son objectif était de réduire cette opposition sénégalaise à sa plus simple donc expression donc finalement on se rend bien compte que ni euh, euh toujours dans le cadre dans dans dans cette dans ce même ordre d'idées et eh ben euh, euh, justement titre bi Walf Quotidien def tey euh, ànd na ak effectivement li nga xam ne mooy li xew léegi parce que naturellement imaginez bien opposition Sénégal bi la plupart Euh, des des des des opposants des des, des opposants euh, connus et reconnus dans ce pays aujourd'hui sont du côté du président Macky Sall question bi kay moom mooy ci li nga xam ne moom laa bëggoon ñu waxtaan Thioro euh, Théo et puis et puis et puis et mais véritablement ana qu'est-ce qui a été à l'origine pourquoi le président Macky Sall est en train de de de réussir euh, euh, li nga xam ne dégg nga maam moom la waxoon il y a deux ou trois ans en arrière donc euh, je, je je ne sais pas moi, je réfléchis beaucoup de choses mais je ne suis sûr de rien je dis juste une chose euh, euh, je ne dis je ne dis même rien je dis rien du tout je dis juste que c'est un constat que je fais le constat moom mooy je suis pas le seul puisque Walf Quotidien def nañ ko Walf Quotidien wax nañ ko. le Sénégal vers une démocratie sans opposition parce que justement où les opposants liquidé euh, physiquement intellect intellectuellement j'allais dire psychiquement euh, donc forcément euh, gars yi yëngatootuñu euh, Khalifa Sall qu'est-ce qu'il devient maintenant est-ce que c'est un véritable opposant les autres aussi comme comment il s'appelle ana ana Karim Wade kenn déggatu ko au fin fond de de de de, de Doha au Qatar je, je pense que vous avez quelque chose à vous avez en dire quelque chose Théo li li amoon jamono Abdou Diouf si syndicalisme. Mhm. xam nga temps yooyu dañu doon ne participation responsable. oui benn centrale syndicale moo amoon mooy CNTS. waaw Madia Diop fa lañ jëm ak ak politique bi. Mhm. mooy doom opposition de participation responsable mooy am mooy parti. Mhm. da ngay ñëw wax li ngay wax contribuer. jeex na amoo baat. te nag loolu c'est dangereux pour une démocratie je crois que c'est dans un débat de contradiction et un débat d'idées qu'on peut trouver des solutions. et non pas Mhm. la loi du plus fort. absolument gis nga attention au retour de bâton. gis nga da ngay brander yat. Mhm. yat boobu xamoo fu muy teg. gis nga Ablaye Wade bu fekk nu woon tey moom mii Macky Sall. Mhm. Ablaye Wade noonu la ko def. du yegg fu mu yegg. donc na bàyyi nañu xalaat loolu. attention au retour de bâton. qui peut être un précédent dangereux pour le pays. ma ñëw rek. Euh, Ah, Aliou Sow moom ma nag tuuti tuuti tuuti parce que. Mhm. Euh, dafa jot sëkk ñu daal di wax sunu xalaat. Mhm. comme tey ji yàlla def na ñu ñu toog ci ci télé jàkkaarloog euh, askan bi. Euh, comme fi Aliou Sow waxee ak Théo foofu laa leen di fekk see. ci li nga mhm. xam ne ni tey ji moom moo am wala sax moom moo bëgg am fii ci ci ci Sénégal. tey gis nga askan bi ñu ngi toog di seetaan loo xam ne nii su jàllee nañu xaar leneen lu gën a piir li ñu dal ni tey muy man fi may ñëwee mooy damay delluwaat ci li nga xam ne moom moo di ci problème bi. ak mu juddoo xool ku ci nekk ci sa aqulaay taala nga xool li nga xam ne ni tey jii mooy sa diggante ak sa borom euh, parce que ku ci nekk rek xel nga yor te it sa xel moo lay moo lay jariñ euh, que euh, bu fekkee da nga bëgg a liquider opposition mën nañu mën nañu parce que neex goo xam ne nii ku xas ba toog ci nguur xam amaana doo bëgg a jóg ndax Afrique la ñu nekk mais na nga ko def ci anam boo xam ne ni tam day set Aliou Sa Aliou nu ñu koy waxee ti Khalifa Sall mu dem toog liquide nga ki nga xam Ousmane Sonko ñëw ñu ne moom mooy deuxième ki nga xam ne ni tey ji moom moo tere eh, nelaw ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall jiñ affaire viol boo xam ne ni tey jii ku ci nekk consciemment toog nga ci sa ruq nga xalaat ba xam ni ah ñu koy gàtt amaana mën na nekk ba ñi nga xam ne nii ñoom ñi nga xam ne ni tey jii mësuñu ànd ak Ousmane Sonko li nga xam ne nii moom moo di ay waxam ci li nga xam ne moom ci seen ay ruq daal di wax ci télé yi que eh, ah xaar nga yoon viol bi koy jiiñ am na ah, beneen yoon bi mooy viol boo xam ne ni tey jii ah, kenn mënu cee ah, teg loxo man tey jii jëluma position jëluma position pour kenn mais su ma doon jël position man tey jii ci côté Adji Sarr laa nekkee parce que moom moo gën a néew doole moom tey jii la ñu war a gën a mën a faral parce que na doole fi nga xam ne moom moo di ci askan bi beneen bi mooy moom ne ni tey jii moom moo néew doole man su fekkoon man ci place am toog man nekk tey jii Walfadjri cinquième étage suñu amaa nag gardien bi nga xam ne mu ngi ci suuf immeuble bi dina yëg ne ah corokat am ñu koy def ci ci ci ci suuf donc baax baax dem ci fi nga xam ne moom ci institut bi ñu wane euh, kër gi nga xam ne nii foofu la euh, Adji Sarr wax ne fa lañ ko doon violé euh, ñu violé la après deux heures de temps après nga soog a mën a dem daw ci fi nga xam ne moom ci spécialiste comme ni ñu koy waxee hmm. pour mu mën a détecter li nga xam ne ni moom mooy viol bi ñu la def kooku rapport yi ñu gis suñu mbokk journaliste yi ñu dayloo seen xam-xam mooy viol euh, xëy na mën nañu ko fa ah, nekk euh, wax ñu cri de cœur la mais pour ñu gind ñi nga xam ne ñoom ñoo askan bi toog di ñu seetaan ana lan moo tax euh, lu ni mel ñu bëgg koo bàyyi wala sax ñu war koo bàyyi mu daal di mu daal di jël ci réew mi rapidement c'est vrai que dañuy tiire trop sur Macky Sall parce que peut moom sunu aussi cette position la parce que su amee ambition de réduire l'opposition à sa plus simple expression mais euh, tey Idrissa Seck bu demuloon fekk ji Macky Sall mais tey bu nekk par exemple ak li xew ak Ousmane Sonko si unité de l'opposition là man na Macky Sall mën na am tuuti recul parce que rapport de force bu ñuy wax bi moom Macky di ragal c'est c'est pas cet rapport de c'est pas ce rapport de force de violence mais d'opinion tey au PDS protocole de Conakry bi ñuy wax uh-huh. mais ñoom dans le que du ñoom ñoo doon jàppale Macky Sall dans l'opposition en pleine campagne électorale moi, moi, moi, dire que uh-huh. dañuy reprocher à Macky mais Macky moo leen gën ay politique il faut il faut mmh. dire la vérité parce que du uh-huh. question aussi que ne dañuy ne mais c'est ça aussi la stratégie d'un gouvernant xam nga xam nga Macky Sall dama fi mos wax bon évidemment après gis naa koy reprendre mais da dama mos a wax ni euh, Dieu mais Macky n'est pas petit mais boobu loolu loolu loolu loolu dissertation la loolu loolu loolu kooku dañ koy jox étudiants ñu ñu réfléchir mais dafa am lu taxoon ma wax loolu mooy lii di xew nii jusqu'à maintenant boobu Idrissa Seck demagul ci Macky Sall. Mhm. boobu Idrissa Seck ñëwagul ci Macky xam nga boo gisee Macky Sall waxoon. je vais réduire l'opposition en sa plus simple expression xam la ma taxoon mu waxoon ko euh, pas parce que il est fort certainement parce qu'il a le pouvoir mais pas du loolu kese mais parce que dafa xam dafa xam sénégalais yi ni ñuy fonctionner dafa xam hypocrisie bi am entre les partis politiques ou dans les coalitions même au sein de Bonne Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom moo koy contrôler quand imaginez est-ce que yaa ngi imaginer bi deuxième euh, bi bi bi euh, avant élection présidentielle di commencé bi bi bi ñoom euh, Idrissa Seck ak ñoom moom Mamadou Lamine Diallo gars yi ñëpp ñëpp daal ne def Idrissa Seck la ñuy jàppale ci deuxième tour bi est-ce que est-ce que yaa ngi imaginer ñoom Ousmane Sonko moment boobu ñuy jàppale Idrissa Seck est-ce que xalaatoon nañu ni Idrissa Seck capable na un jour mën a dem ci Macky Sall est-ce que yaa ngi imaginer Mamadou Lamine Diallo bi muy jàppale sa Seck ba ñu ne ko. yow la moo tax nga jàppale ko mu ne ko parce que sur les 20 points 18 yi d' accord nañ ci mais ban garantie la amoon moment boobu que ni le gars ki muy en train de de de de de de de jàppale que kooku plus tard du ko def leneen est ce que ils ont du sérieux bu ñuy jàppalante nit est ce que dañuy jàppalante parce que tout simplement dañuy ku nekk dafay bëgg day bëgg après am dara par rapport ak séddoo bi la preuve xool leen benn boo ko yaakaar bi ñu paree Sénégal réunir ñu pour euh, benn ak unique unique objectif mooy defar réew mi autour d'un programme solide considéré expérience précédente yi fexe ba nga xam ne loolu yi problème yi amoon yëpp bañ a amati ñu tënk ko ci ay këyit mu leer nañ nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy rek dérouler loolu duñ ko def loolu taxu leen dañuy def coalition nii rek parce que ils veulent faire tomber Abdoulaye Wade ils vont encore faire une autre coalition parce que ils veulent faire tomber tomber lenn ngeen di def man je vous garantis une chose dama ko mënul waat ci alxuraan rek mais da di dóor Macky Sall du am deuxième mandat bu ñu dellu woon ñoom ñëpp autour de Ousmane Sonko. parce que moment boobu je dis Ousmane Sonko parce que il avait le meilleur profil moom moo gën a moom moo bees moom moo set et puis yi moom la ñu teg bët. Mm-hmm. la preuve bi ma koy wax Ousmane Sonko xa kenn xaaratul woon dina jël troisième. bi may wax loolu noonu. Ousmane Sonko kenn xalaatul woon ni day jël troisième aux élections présidentielles ma leen yéen ñëpp nekk ci opposition bi comme yéen yàgg ngeen fi yàgg ngeen nekk ci nguur gi li may leen di ñaan mooy ngeen fexe dajaloo je l'ai dit à la radio allez voir les archives ngeen dajaloo autour de Ousmane Sonko mag ak ndaw xale képp koo xam ne mës na politique te mësoo ci réussir wala mës nga nekk ministre wala yaa ngi ko ne di exister toujours politiquement dajaloo ngeen di def. au lieu ngeen dem ci Idrissa Seck ngeen dem au lieu ngeen dem ci Idrissa Seck laa wax dem allez regarder ce que j'ai dit xale bu ndaw laa man leen au lieu ngeen dem dem ci Idrissa Seck dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen jàppale xale comme ça a été fait avec Macron. Mm-hmm. ngeen dajaloo. Mm-hmm. boo leen dajaloowee da ngeen di dóor Macky Sall que Macky Sall du mm-hmm. bu boobaa si les cartes gi di gën a mais pourtant ils l'ont refusé ils ont préféré xeeb. Ousmane Sonko. Mamadou Diame Diallo yéen ñaari wax yéen ñi ñëpp. nii yéen loo leen di wax quand vous vous réveillez là le matin là vous regardez Idriss Seck vous dites quoi. Jommi. ah loo leen di wax moo boobu pourtant boo leen jàppale woon Ousmane Sonko di ngeen daaneel Macky Sall Macky Sall du am deuxième tour. Euh, Aliou Sow pour def li ngeen lu leen neex. Mm-hmm. pour conforter maintenant tant pis pour vous. pour li ngay wax tey majorité bi ñu am assemblée. 2017. bu euh, wadd PDS bu ñu bëggee ñu mm-hmm. def coalition mm-hmm. manko euh, opposition bi tey bu ñu ko defoon xëy na waxuma la di Macky du am majorité mais au moins. Euh, euh, opposition bi dina am euh, au moins une représentativité considérable mais li ci def après même pour à l'Assemblée nationale réew mi après dafa dem ñu nekk ak ñoom xalifa Sall Euh, am deux pàcc may euh, opportunité. Euh, le pouvoir mais Khoulos pourquoi Khalifa saal par exemple ak ñoom Mamadou Lamine Diallo et les autres qui sont que caciques du pouvoir qui sont là am ay xam-xam pourquoi du ñu dajaloo jël benn xale changer réew mi. Mhm. jiital ko. pourquoi ñoom ñu ko def mais ñoom xamal la ñuy def xam nga Sénégal mu doy waar da ngay gis nit muy wax yow nga yaakaar ne yow yow yaa ko si jiitu yaa ko mag yow jàng nga am nga foo jaar yaa ko mën yow kii warul a jiite. c'est c'est ça qui est terrible te ñoom Moustapha Niasse nii loolu moo leen daloon ci Macky Sall mais dañu amul woon choix moo tax ñu topp ci ginnaawam mais bu doon seen sago Macky Sall du mës a nekk président de la République mm-hmm. kon xam nga il faut dire la vérité ñoom ñooy xeeb xale yi gis nga fii nee naa leen 70 pour cent des sénégalais ont moins de 35 ans. Mm-hmm. il faut ngeen jël xale ngeen jiital ko yéen ñi nekk ci opposition bi yëpp muy muy Khalifa Sallo muy Mamadou Lamine Diallo muy ñoom euh, ñooñu pur ñëpp yéen ngeen dajale mais jëleen benn xale ki ngeen ki mm-hmm. xam ne moo am le bon profil le meilleur profil nañu waxante dëgg te yàlla tax c'est Ousmane Sonko mm-hmm. bu fekkee da ngeen bëgg mi mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci opposition bi xam nga lan lañ bëgg xam nga lu ñu lu leen gën a. Mm. Macky amaat beneen mandat que Ousmane Sonko di nekk président. Mm. loolu man nii maa leen ko wax. nga ko fi te l'histoire nous a donné eh raison sax si yenn yu am alors il faut rapidement ñu jàll ci beneen actualité. Mm. moo nekk la une de l'As quotidien arrestation de Guy Marius Sagna Assane Diouf et Clédor Sène l'audio qui affole le pouvoir. bah oui mais il faut kii kii xam nga aussi man euh, bon. Encore <laughs> Fatou vous allez encore dire que lii leen c'est pas mm-hmm. am un système il faut aller booy gis nga nañ dem lire quoi nañ dem xool euh, comment comment c' est que il faut aussi qu'ils aillent voir euh, jàng comment comment comment les grands complots politiques. Mm-hmm. loolu dañ loolu dañ xam. wala ngeen dem seet les extrémistes les partis extrêmes yi nga xam ne ils sont arrivés au pouvoir allez voir en Autriche. gars yi ñuy ñëwee pouvoir allez voir Hitler comment il est arrivé au pouvoir démocratiquement avec il faut voir aussi euh, comment Batista nan la ñu daanelee Batista. nan la ko Fidel Castro daanee Batista en 1963. il faut ngeen dem xool yëpp pour xam parce que dafa am nu ñuy daanelee dafa am nu ñuy daanelee nguur et ce n'est pas du du doole Hitler bi muy ñëw Hitler bi muy ñëw mais il était tout doux il a gagné démocratiquement les élections présidentielles dem leen ngeen xool euh, Jean-Marie Le Pen comment il est comment comment il a failli ébranler la France en en euh, tuuti mu nekk président de la République. Mm-hmm. dem leen xool Marine Le Pen comment elle est en train de monter gis nga il waxee olof. affaire bi du du frontal c'est du fractal entre frontal ak fractal y a une différence frontal mooy ñëw dal ci affaire bi di pousse di jaay doole doo dem parce que nguur gi nguur gi euh, ñoom ñoo yor doole ñoo yor armée ñoo yor xaalis ñoo yor lépp fractal da dagg di jàll xaw ma ndax dégg ngeen la. Mhm. c'est da ngay da ngay dagg di dagg da ngay jékki rek. waaw xool di nga jékki-jékki rek garab gi ne garab gi ne teel daanu mm. pour loolu il faut ngeen def ay communauté de communes dem ci région yi vous que au Sénégal y a un peu plus de cinquante cinq cent cinquante six communes d'arrondissement wala cinq ou je ne sais pas mais en plus de cinq cent cinquante sept léegi am na beneen donc du coup yooyu ngeen dem xool Sénégal ñaata communes d'arrondissement la am ngeen dem yéen ngeen dajo d'abord ngeen boo tegee programme bu leer naññ ba pare ngeen xam lan ngeen bëgg kan ngeen di jiital éventuellement parce que tout simplement pas forcément il est il est plus intelligent mais juste parce que parce que il a le meilleur profil. un président ce n'est pas forcément celui qui est le plus intelligent. ce n'est pas vrai maintenant boo leen amee boo kan mooy am profil ku am meilleur profil ngeen xool léegi ak moom lan ngeen bëgg teg un national maillage boobu ngeen dem ci commune d' arrondissement yi wut fa ay nit dem di wax ñoom def tour bi mais imaginez Macky Sall a plus de kilomètres avant muy jël nguur gi. am na ay béréb yoo xam ne dem na fa ñaar ñetti yoon am na béréb yoo xam ne sax dem na fa ñeenti yoon. mais pourquoi vous ne faites pas la même chose manifestation yi ça s'arrête à Dakar. mais euh, Aliou Sow foofu dama la see bëgg bëgg yokkal rek ah ñoom pourtant si si si euh, euh, yoon boobu noonu waaye euh, jël euh, génne ko di Pape euh, Pape Moussa mhm. mu ngi koy wax naankaan instant bi dañuy war dem Pikine ndax commencé nañ def ay comité de de résistance di dem di waxtaan ak gars yi voilà di mhm. dem di wax ñoom moom comité de résistance sax noonu noonu la ko di mhm. dem di waxtaan ak gars yi pour xamal leen li nekk suñu kanam lan la pour xamal leen ne que instant bi nii da dañoo dañoo war a war a bañ pour xamal leen ñu bëri yoo xamante ni daal mu ngi xew si dëkk bi mën leen préparer psychologiquement ci li nekk suñu kanam ñoom ci yoon boobu lañ nekkoon je suis tout à fait d'accord avec ça bu fekkee ne c'est le cas sauf que faut pas l'appeler communauté de résistance résistance c'est pas bon pour la stratégie de communication mm. il faut dire communauté communauté communauté euh, euh, comité de de de de de par exemple ah. ah, résistance yooyu ça ne tient pas gars pour nga wax ak il faut ngay def ndànk parce que fii nii ñëpp xam nañ comment Macky Sall il est venu au pouvoir à pour tenir euh. la pouvoir pouvoir pour nga jot ko il faut il faut nga def xel du affaire u jaay doole hmm. parce que boo leen jaam doole doo leen yegg hmm. Macky Sall amoon euh, président euh, Abdoulaye Wade mais amoon na doole mais gis ngeen gars yi dañ ko nax te kenn ki ko si gën a nax te kooku lañ gënoon yaakaar ne tekkiwul dara mooy Macky Sall parce que Moustapha Niasse nee naa leen ak ñoom tanoor ñenn yàlla na yàlla yërëm mosuñu woon xalaat ni dañu xeeboon Macky comme gars yi ni leen xeebee donc comité bi lii baax na mais autour d'un leader avec un bon profil parce que ñi fi nekk nii les caciques de l'opposition là nekk ci kaw nekk fi depuis 20 ans 30 ans du ñooñu ñëw ci nguur gi mm-hmm. ils sont pas capables de le faire parce que jaralul leen ko yéen nag réfléchissez réfléchissons yow Guy Marius Sagna waxoon naa la fii ci émission jàkkaarloog yow ne la bu ñu la tëjaatee 6 mois ngay def yow vous nous faites perdre 6 mois yow dafa am njëriñ ci biti. bon bu ñu la tëjee juróom benn weer nan ngay def. Mm-hmm. Euh, donc je ne veux pas de ça ni de Clédor ni de Assane Diouf. Euh, il faut pas faire ça Assane vous êtes euh, malade. vous n'avez pas droit de rester en ba tey ci yow laa nekk di la jàppale ci li nga xam ne ni moom ngay wax. mooy que man yaakaar naa ne comme li ngay waxee nii baax na mais actuellement est-ce que ci contexte boobu aussi lañ toll ci wax gaa yi que li ngay wax nii avancé na avancé goo xam ne nii est-ce que bu ñu toogaatee d'ici 2024 ñaata ñaata at moo ci des. yàggatul bu ñu bëggee tamit tegaate comme ni nga comité après kan la ñuy jiital. mais opposition amatul. nan waxante dëgg opposition amatul euh, boo xam ne. mooy euh, yi mooy Sonko Ousmane na Ousmane Sonko c'est le patron de l'opposition. il faut tous yéen pour que loolee dem yéen ñëpp mais est li ngay waxee nii est que yaakaar nga kon tey jii euh, Ousmane Sonko daan na ba pare. mais mais <laughs> Thioro bu ma wax loo. mais man dama bëgg a wax non dama ne complot politique xam nañ ni mu demee xam ma man dama. mais euh, il a loolu jugement de valeur la nañ bàyyi noonu la mu sëq ak Adji Sarr yëpp nañ ko bàyyi mais est instant bii nii mën nañu jàpp ñun en tant que citoyen citoyen que du euh, bàyyi loolu parce que dafa am loo xam ne dama ko waxoon te loo xam ne dafa dégg mais bu weesoo loolu bu weesoo loolu loolu loolu à part mm. évidemment que ni mais dañ lay tegal dañ lay tegal palaat xaw ma nu ñu koy te euh, comment ça se dit dañ lay dañ lay tegal. Euh, euh, weddiwuma li nga wax weddiwuma li nga wax mais non dañ këppatal ma ko dal. dëgg la li nga wax mais xam nga tey boo nekkoon ci wetam lii du ko dal far yàlla nekkoon ci wetam ba lii dal ko mais actuellement dama bëgg tey jii nga ñu xam ne il faut ñu xeex ba opposition am ñu soog a wax li ngay li ngay. ban opposition xeex xeex ba opposition parce que parce que moom moom mi nga xam ne moo jiite réew mi mi ngi faat ay opposition ay ay ñi nga xam ne moom lañ xalaat ne. ñoom la war a jàkkaarloo te ci tànk bi la nekk. gis ah, moo tax quotidien quotidien def def def à une Aliou affaire du leader de Pastef Sonko divise l'opposition. mooy li di wax nii rek pardon allez regarder vous verrez bien. Mhm. pardon. Mhm. c'est une lecture directe d'une chose ah. que le dialogue national maintenant est plombé. et est-ce que aujourd'hui aussi Wade n'a pas eu raison pour ce dialogue national lorsqu'il disait que. C'était une tactique du reculer pour mieux sauter pour ouais. Macky Mais et aujourd'hui les choses ont montré que l'écart parce que aujourd'hui ñi doon wax yëpp tous les gens qui avaient brandi que oui tout le monde doit partir léegi c'était une tactique aussi de reculer pour mieux sauter pour aussi fragiliser davantage l'opposition parce que en moment donné Macky sait que son parti est divisé pour preuve y a des communes yoo xam ne tey bu ñu demoon élection locale ci jamono jooju yooyu six listes xam na ko donc mu bloqué te actuellement vu la xamaat na beneen affaire ñu ngi waajal ay découpage administratif mu ngi en jeu découpage administratif yooyu bu amee c'est pour davantage voir les communes yi nga xam ne ne moom moo ëpp la ëpp doole par exemple je peux prendre l' exemple ñu ngi mûrir benn affaire pour jël Pikine Est Pikine Ouest ak Pikine noor boole leen Pikine Est moom moo fa nekk maire APR la. Mhm. Pikine Ouest maire APR la. Pikine Nord maire opposition la. Mhm. ñoom ñaar suñu boolee ñooy ëpp électorat pour mën a pour mën a taxaw donc pour dire que Macky est très politique. trop il est politique. trop et malheureusement aussi comme lii Aline wax les gens n'ont pas yu faire une chose gis nga en démocratie da ngay nangu lenn kuul xam na ne moom moo la mën ëpp la doole électorat nga nangu rangé wu si mais au Sénégal les gens n'ont pas cette culture xam nga lan la ñuy def maa dàq jàng kii maa ko ëpp lii maa ko jëkk ci arène bi maa ko mais boo jëkkee te amoo mbooloo la preuve la preuve moo tax ma ne li nga wax de la naissance xoolal des des partis de gauche depuis 1958 avec le PAI il y a eu de partis de gauche qui sont nés aujourd'hui la gauche est divisée la gauche y a de partis de gauche mais wax ma ñoom benn stratégie lañu am ils sont très stratèges tey boo demee insiste euh, communes yu bëri soo demee bu maire bi nekkee kii adjoint au maire wala troisième adjoint bi dina nekk parti de gauche. Mhm. stratégie la ñu la ñu mën mais am ñu doole léegi nag ñi nga xam ne nag amuñu doole.